uji suivre Habiba TV waye itam di len jaal suñu turandoo suñu xarit mhm. deug yalla suñu lepp ci mhm. serigne Pam Malick di ko ñaanal yalla na yàlla dolli leeru bàmmeelam amin amin kep ko xamni ne daal yaa ngi dégg suñu kàddu fa nga nek yalla na la fay yalla fekk defal la jàmm amin amin amin Allahumma. Mhm. amin fa tabaraka allahu Pam Euh, du benn du ñaar du ñett du ñeent ñu ñu dalale ci guddi àjjuma yi waaye fa ah. tabarakallahu sa soppe yi sa nit ñi sa sa sa yaay yi sa papa yi fa tabarakallahu sa rak fa tabarakallahu bi ñu ni sànq rek yow la ni dalal euh, man sama messager yi fees na denn fa tabarakallahu ndax xam naa ni cofeel bu am ci yow ah. waaye yi tamit xam naa ni cofeel nag du jàmm ah. cofeel nag du jàmm fa tabarakallahu waaye yi tamit dañuy kontaan bu baax waaye tamit manit it eh, da ñoo jaal koo xamante ni nee nañu ku ne nekk mën na koo jaal sa moroom hmm. waaye tamit man dama la koy jaalaat bu baax a baax fa tabaarakallaahu hmm. bu ko defee rek ci kàttanu yàlla xam naa ni foofu la ñuy tijjee rek bu ko defee guddi na ba noppi bu ko defee li ñu fi mën a andil rek ñu andil ñu ko ginnaaw bi ñu santee yàlla yaa ngi tuwaawan fa tabaarakallaahu ci xadara bu sell bale nit ñi nag gëj na laa gis ci tànt yi li la tënk la tënk ñëpp moo tënk gaamu yeeg ziyaar yi fa tabaarakallaahu Ah. waaye rek yi tamit rek nga ñu relation ak sa turandoo le rek quelque résumé rek xam naa ne du ñàkk sax mës nga koo def waaye da résumé rek sa diggante ak sa ak yu mujj yi nga xamante am na lu avancer rabbi. Euh, la euh, avant muy ni soxna nañ ko tuddee sëñ Pape Malick si fekk booba da doon dem guleel ndeysaan waaye yàlla dogal na tournée ba mu ñëwaat est-ce que bi mu ñëwee moo moo moo tuddee ma sëñ Pape Malick cofeelam ci sëñ Babacar nag la la la la la xamoon ni man bi ma juddoo mu tuddee ma sëñ Babacar ma tuddee ma sëñ sëñ Pape Malick di caatu sëñ Babacar ak cofeel bi mu am ci sëñ Babacar si la xam ni moom dootul am doom bu góor oh ndeysaan nga xamni ni lu du jam mo do ko sank deug la mhm. sama turandoo nag sëñ Pape Malick yalla moko defon ci xol yi way mu don nit ku simple te mhm, la aj Habiba seigne Pape mhm. bi nit ni xamni ak boo keram fekkee këram danga logis mbah, lo gis mbax ba sopp ko ci image so demé këram di bu fe bu dé ben nga gis bo demé këram di nga gis junni ci wacc ak oyof ak mana waxtaan ak nit mana kaf ak nit maanaam reetaan ak ne ndeysaan dëgg la waaw yàlla ya defoon loon ko mu doon nit ko woyof eh, yàlla ya def itam bi mhm. mu commencé dugg ci xolu nit nit ñi di ko découvrir yàlla ko ndeysaan wallahi wallahi xam ne rek yàlla faalun li maa yurid dëgg la fa waaye nag sant yàlla rek sant yàlla ba nga laaj ci mujj moom daf ñu daan faral di wax ni baa baa ya, jàppewu leen seen bopp ay xale ndax responsabilité bi ngeen amee ndeysaan ñun itam baa du ngeen jàpp seen bopp ay géwal ndax ñun jàppewuñ ay ah man daf <laughs> ya mhm. ma daan wax ma est ce que dem dem ko ma nga nga nga def safara waaye nag na nga ndax xaaj Habib. màkk mhm. ñooñu gën mag ñu njëkk waaye ñoo leen gën mag ñu mujj. dëgg la dëgg la. Mhm. ku ne na ni ñoom ñoo tëdd ak yonent bi waaye ñun ñoo leen gën a sopp si Seydina eh. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. a loolu nag grâce à Seydil Hadji si borom mhm, ndax moom nee na yaakaar naa lépp nag ëllëg waaye ëllëg nag li ma gën a yaakaar. mooy sama cofeel Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ليس عمل يا عملي والتعظيم والسلام والله والله mhm. Mhm. man ma am la ko ba dama sëriñ ndax may may est-ce que est-ce que la jox na na jamono ju ja na Maintenant, 10 ans. borom ëpp ko. est ce que est ce que. dinaa gëstuwaat ban jour la sax parce que mi ngi ma ko may fële ca booru Ngaay. Ngaay. ca booru euh, Ngajaga. Ngajaga Bartal waa dëkk bu ñuy wax Bartal benn conférence bu fa ndeysaan. ma dem foofu dañuy fa moom jël classe. est ce que. Mm-hmm. macha allah. moo tax ñu profité sax wax ci ni jeunesse bi nañ ñi may nañ jël werd wi dëgg la dëgg la. Oh. nan ko jël ndax gis nga yow saabu. raxas tilim moo ko tax waaw waaw dëgg la. am nga léeg nga dajeeg nit. ko yow donte sax du propagande. la ndax koy bañ. la waaw. mag ñi wax ni bu ñu yëgoon sax ñaan ko ndax jamono laaj na ko. ndeysaan la ndax bañ a seen njaboot gis nga léeg nga dajeeg nit ni ko ndax mu ngi man kat damaa pareegul dëgg la waaye tarixa bi bu la fekkee ngay def lu bon sax boo ko yàggee jël nga dinga ko bàyyi te sëñ Abdou def ni mhm. ku jël werd bi di ko def ni ni ko waxee ku la daan nuyoo benn loxo mhm. bu ñaari loxo la lay est-ce que ah, nga xam ni kon tarixa bi du caaxaan dëgg la dëgg la dëgg la masha allah rabbi li ñu ci dugalaale nonu bari na ci ndaw yi fa tabarakallahu deglu nañ ko ndax ëpp den mën na ni ndaw ñi ñoo fi ëpp donte na suñu mag yaangi fi fa tabarakallahu ay jambar lañu waye masha allah rabbi waye man neena la parce que bëggoon na la jël ci bëccëgu alxamis le 25 juin 14 heures mu nekkon bëccëg bu xat nak am na fu dajé won nonu waye waaye ci làmmiñu papa Dudu kenn mbay bi may dugg si tuawon mu am luma dégg ndaysan mu témoigné ko ci yow ci am am am am daal parce que dinaa la ko junj mais sa làmmiñ laa bëgg nga génne ko am lu mu wax ca rajo ba mu ni am na loo gis daal ba nga demoon ca moom wax ko ko loolu rek laa bëggoon nag fa tabarakallah nga gën ñu koo leeral sa diggante ak sëñ Pape Malick ci fan yu mujj yooyu le xam nga <coughs> avant muy faatu. Mm-hmm. Euh, su ma ay euh, cinq jours avant. Mm-hmm. laata di gént ma gis ko fii fii fii parking bi nekk fii ñu def parking. parking bi ci côté résidence mais nak wa mais nak bima koy gis ci gént bi ni ah. hmm. park hmm. ni, ni foofa meloon bu njëkk bayaal mm, waaw ci xal bobu la ko gisé mo wax ko ni ko dama bëggon nga jox ma dog bo xamni ni damay gis mag ni ndaysan ni ma talal la ni ma talalé ñaan raay ma seen ben paa di ñoom ñu sol vert bi mu ñëwee ba ak sit ñun muy bayal xaj mbay dond suñu koy jëf mi ngi tak ay garat nak waye dafa continuer dem mom waxul ba légui mm. sing sëñ mani maa ni ma man nag maa ngi dem ndax daa am li mu mag ñi damay dem mottali ji ko bi ma ko nettalee dut kenn nag xam naa ni moom am lum lu mu yëg ndeysaan moo tax bi ma ko woowee bi ma ko woowee ci dëj bi rek ba ma ko woowee rek mu ni ma sa gént ko est-ce nga xam kon dañ ci sant yàlla mm-hmm. ndax ñun suñu turandoo tàggu nañ tàggu nañ wallaay ndeysaan waaw ah wallahi wallahi man dama ko dégg mais daf ma parce que dama euh, man ñame moo woon a tàgg sëñ Pape Malick mais dudu Kébé may ba mu waxee loolu man ci laa doo gëm ne pam malik génne na àddina aw ma fit bi te ñame ma ko woon alxamis la fi jóge fekki yàlla oh, na mag ña ma si jaadu ma semeturodol simaali kon ma wayla alxamisal la fi jóge fekki baayam ma wayla sama turandoo la simaali kon ma wayla kii bayam sëñ Babacar tudde simali kon majoi jooy la xam nga way bi apa avant muy faatu mm-hmm. dama jékki-jékki rek ma ni ah mais man nag jaadu na ma woy ah dëgg la dëgg la noonu rek ma ni kon naa ko woyee noonu ma ni mm-hmm. Sëriñ si jaadu na ma woy la sama la si Malik kon ma woy la bi mu faatoo nag ma départ wayu ma ni si jaadu na ma jooy la sama turando la si Malik. jooyla alxamis la fi jóge fekki baay ba ma jooyla sama turandool si maali kon ma jooyla danaa ko yokk incha allah rabbi <laughs> ah, eh, waaye yi tamit eh, dina ko jàll nag bu baax parce que nim ñu bettee noonu la la bettee te xam naa ni xaw ma ci ban xaal la la fekk ek dal way tamit di la ko jaar rek wala nga wax ñu ci yan moment la wala ñun ñu ko sénégalais ñun ko déggé rek nañ ko déggé waaw waaw xam nga non rek la ko déggé dama yew sama soxna yeema. Mm-hmm. ni ma am na am na lu xew kat ndax nee nañ sa turandoo dafa dem. euh mané ko lan. est-ce que. après téléphone yi soné ni soné ni soné mais ma xam ni rek. dëgg la. Euh, gisuma kenn ko def déclaration ni amul tegala ma mhm. yaakaar ni daal affaire bi am na wallahi wallahi après télévision yëpp kii ko nag ndeysaan jël ko mhm. waaye metti na waaye namit dañuy dellu ci ay waxam rek ndax mhm. dégg nañ ci ay kàddoom mu ni boo ñàkkee kenn sa baam sa xel dem ci bàmmeel yonent bi rek nga mën koo fa tabarakallah Mm-hmm. ndax mission bi moom du daanu mukk insha wallahi wallahi kon nañ gën a tàkku rek gën a góorgóorlu insha allah li may faral di wax rek mm-hmm. bëgguma alal bëgguma dara mm-hmm. li ma bëgg mooy jël ndaw ñu jox sëñ baaba kon nag ndaw ñi tàllal naa leen loxo waaye ñoom it dama leen fekk ñu tàllal loxo dëgg la moo tax nag fan wi fan yi sama wayu beesi bi ma way sëñ babacar waaw ma ni joxuma sa bu loxo ma joxal la ñu jox Seydi Mbay ndeysaan billaahi moo ko jar turam siiw na ndeysaan fu ma ci àddina daal ñu naan Xalifa Mbay ndeysaan Sëriñ Babacar ndeysaan na wallaahi wallaahi kuy taalibim ak foo ne bëgg naa xam ñu ànd jëm ca mbay mhm. turam siiw na ñu xam la way ko mbaa nga way wayam mm-hmm. billahi mo ca turum siona wallahi habiba jox mm-hmm. ma solo ma joxul la ñu jox sayyidi mbay billahi mo ko jar turam siiw na léelée ma way ñu naan ma sa way ka neex du man seigne baba kër si la siiw na mais nag Habib lan laa bëgg nag ñëw nag benn jour ñu def spécial boo xam ni dañuy toog ma toog insha allah xam nga ñu ñu ñu jël ñu jël ñu jël caméra bi xam nga xam nga xam nga defoon nañ fi benn ca tabaski ga waaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi te may ñu rek insha allah rabbi dinañ ñëw ñu dekkal ko parce que man damay bëgg def rek lu def benn yoon rek di ca toppaat waaw insha allahu rabbi rek ci kàttanu yàlla après tabaski inshallah rek tombé lépp ki rek ñu def ci ben ben ñu def ñu def ko genre ben entretien bo xamanteni du gudd waye dina am solo lol inshallah rabbi inshallah dina ba inshallah rabbi parce que. yow it la nak ci cent mille abonnement. waa dëgg la ndeysaan wallahi mu mu mu fekk nak jomono jomono parce que ñu ko am le 27 juin ci ndeysaan ñetti fanu Serigne Papa malik si mu xaton lol te yi tamit. wax dëgg yàlla moom moo ñu ëppal cent mille abonnés foofu moo tax rek ñu denc ko foofu waaye dinañ ko gën a yaatal yow ci Pape Malick Mbaye TV bi tamit jëlee ci ndokkeel. est-ce que xam nga ni 27 juin la Seydi Hadji Malick génn àdduna. dëgg la ndeysaan est-ce que est-ce que est-ce que. waaw kon da lay wan ni li nga koy liggéeyal moom nangu na ko. allahu akbar ndeysaan ndeysaan. dëgg yàlla Habib Ba bari na kuy suivre kër gi. ndeysaan. li naan sori tajige. Mhm. sori waaye fexe nga ba mu jige. ñaan yooyu la nit ñi ñaanal rek yàlla na la dal amin amin ya rabbal alamin amin ci sit yow ku baax nga ku oyof la non yow abi ba boo ko gisee rek mu reetaan ndeysaan man ma tooñanteeg moom ñun ubbil nañ la suñu bopp dëgg la ndax ñun ñun ñun jaam jaam rek lañ damay faral di wax léeg-léeg mhm. ndeysaan nit ñi xam nga dama xaw na xare jot téléphone nag dëgg la wallaay ndeysaan mhm. pa malik lii malik la man leen bilaay de lool sax dëgg la mhm. man man man maa ñëpp yam ndax ñun ni nu mel habib waaw nit ñi ñoo nu ko def. wallahi wallahi ndeysaan nit ñi ñoo ni woo. Mm-hmm. nit ñi ñoo def ci seen xol. dëgg la. nit ñi ñoo ni jox seen alal. dëgg la. kon nit mënul doon lu dul nit. dëgg la. Mm-hmm. te wayalunu jinne yi wala wayalunu malaaka yi. dëgg la de mm-hmm. donte sax jinne ak malaaka yi ñu ngi ciy bëggee ngir yonent bi. sallallahu alayhi wa kon nag foofu ngi ciy waxaale ni rek. man ñëpp laa bëgg. dëgg la. Mhm. man ñëpp laa fonk. wallahi wallahi waaw yal allah loolu loolu moom man loolu moom man maa la koy seedeel parce que di hmm. des fois sax nit wiiri ci man sax ni ma Pape Malick Pape Malick lii man ma ma nit ma ma dëgër fi rek ma ni ko nag boo ko jotul moom xamal ni jotoo ko parce que de un maanaam nit ñi yitte yi xat na. waaw parce que ku la nekk comme li nga wax rek da xool ci sa bopp fa tabaarakallahu moo tax nit ñi di doon ko accepté. waaw ah. fa tabarakallahu yow it ma seede oyof boobu ci yow fa tabarakallahu doo taqam lu kenn fa tabarakallahu habib waa ñaan sa soppe yi lay seet seetaan waa habib billahi hmm. wallahi tallahi hmm. hmm. dañ laa war a jàppale ah. <laughs> non non da billa xam nga waxuma ko barke sëñ babacar si waxuma ko mais habib ba nit ñi war nañ la jàppale ndeysaan ñu war nañ la jàppale. ndeysaan dëgg la. Mhm. yow dañ la war a jàppale ci biir activité. dëgg la ndeysaan. sa sopp yëpp war nañ war war nañ cotiser jëndal la ay matériel non non dëgg la dëgg la wallaahi. wallaahi dëgg la maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne. dégg nga mhm. sama kàddu te mën ko. Mhm. Habib ko jàppale. ndax am na koo xam ne nag jàppale ko jàppale sa bopp la. dëgg la dëgg la papa. waaw yàlla defal li nga bëgg yëpp. allahumma amiin papa. ci barke sëñ Babacar Si. sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ah, de yaa ko jàllale pexe amul pexe amul en tout cas wax yàlla. Ah, ah. Euh, yow suñu frère nga macha allahu rabbi li ñu boole dafa dafa yaatu yi tamit ñu bokk Tiwaawan bokkoon nañ daara ci sama daara Ndijaay Abdul Aziz ba arab ba fa tabaarakallahu itamit te nit moom man leneen laay seede nit fa nga dëkk bu la soppee rek maanaam jeex na te peut-être ci waa Tiwaawan yow ñoo la bëggal seen bopp fa tabarakallahu après nag la wàll si wàll si loolu yi tamit fa tabarakallahu fii lañ ko fekk te yi tamit ma lay ñaanal yàlla rek yàlla lafa la cat fa tabarakallahu maanaam sa mission bi nga nekk nii nekk sa mission wayjur mu continuer ak euh, kilifa yi nga xamante ni yaa ngi nekk ci seen euh, ci ci seen ginnaaw ñoom ñuy doxal fa tabarakallahu yàlla defal la ci manam najah bu wer insha Allah rabbi insha allah insha allah insha allah moom hmm ku ñuy ñaanal ñaanal ñu wer deug la ndeysaan ak sutura mhm. waye bu lépp jàlle dañu mhm. ñaanal rek ñu am kilifa deug la wallahi surtout sa top rek ci suñuy mag mhm. ñu ñuy digal ñuy def deug la ñu ñuy téré ñuy bay deug la ci barke yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga ñaanal jullit yépp mhm, di ñaanal taalibi cheikh yépp ndeysaan di ñaanal waa kër seydal xaj maalik yépp mhm, dëgg la xanaa ma ya, ko rek la Jika Simba bapa kerja tari Tariqa biyor Syari'a biyor Ya yor lemen bay Ya tak bay bojo Yunu maudusi Nyundunu khari Ya khalifah Ya

Iya, iya, iya, ya ya khaliba ya khaliba ya ma khaliba ma khaliba ya sing babakar ya ya khaliba haram maka suri kita bulla kay bind jaam ya khalifa ya khalifa tijan moy sama mam waaw khalifa mam khalifa tijan simba kirsi khalifa modoy ndeysaan nañu leen ko ziyaare mu jànge du ku ko diful ëllëg dina réer ci yow ndax du la xaari yaa xaliga yaa xaliga Hakika muy sama mampu wa khalifa mam khalifa Tijan sembaba karya Kubuya kau Dan ulak baharam Ada Suriwo Kita burlah بجامي ya خليفة ya خليفة تيجان ليلة لا خليفة يا خليفة Dija Simba bakar ninggamil Cini tengi Rauno suker pencindok তোমালাক দেখম নহলে পচই তোমাকালি আলিবা ইয়া খালিবা জিয়ান লাইলালা Ndeysaan ak mag ñi jox maam xalifa ndeysaan lah, maam oh, Masya allah kenn du moom yàlla yàlla wéral ba Habib sëñ Babacar rek laa gëm non xam naa loolu waaw sëñ Babacar rek rek rek dafa sama xol dëgg la dëgg la dëgg la baax dëgg la ñëpp laa sopp waaye sëñ Babacar si rek laa bëgg yàlla xam na eh, ma dama lay dama lay waxal benn góor benn nitu yàlla mu ni cofeel dinañ ko dañ koy la la la dina cofeel dinañ ko nàmp dinañ ko donn yàlla nañu yàlla may ñu ko ñaanam ga ci ñun na dem ba ndeysaan Habib mm-hmm. Habib baal ma coupé rek wala maa daal. kontaan <laughs> jërëjëf. merci beaucoup Alxaaji Pape Malick Mbaye nii nii nii rek la mel fa tabaarakallahu nii nii.